wala xawla wala quwwata illa billahi alaliyi alazim jotaayu fiq ñuy ci àndaat ak yéen ci ndimbalu Islamic Cultural Foundation of America fii ci masjidul muhajirin wal ci Staten Island New York di fekk ku nekk ci yéen ci guddi ajuma gu tedd gile di leen jox loxo di leen ziyaara te di sàkku ci yéen ñaan te di ñaan sama boroom saan góor gi Abdoul Aziz Touré bu ne saa borom da ngay foog ne moom moom moom rekk ko moom ndeysaan yal na yàlla dëgëral taxawaayam ñuy ñaan suñu borom mu boole leen ñun ñëpp defaral ñu suñu zaahir ak suñu baatin ci àdduna ak ci àllaaxira jàngoon nañu xeeti laab ñu waxoon ne mooy laab ci sobe ak laab ci toj laab ci toj ñu jàngoon détail ya ni jàngewoon woon détailu laab ci sobe waaye toj ci boppam ñaari xeet la toj gu mag ak toj gu ndaw wala bu la neexee nga ne tojle gu mag ak tojle gu ndaw neex na yoo xàmmee nag toj léegu mag mooy lépp luy waral sangu farata muy janaaba wala xayd wala nifaas janaaba mooy ku séq ak soxnaam wala boroom këram lalu sëy walla sax jotuñoo sëy waaye yi jiitu sëy muy bànneexu moo xam ci jonjoo la walla ci anam bu ñu ko mën a defee ba mani yu maniyu génn loolay janaba xayd mooy li jigéen di gis weer wu nekk ñu di ko woowee mbërëg nifaas mooy deret yi nga xam ne moom la jigéen di gis jamono yu muy am doom yal yàlla suturaal jigéen ñépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yépp dafa waral sangu moo tax ñu di ko tuddee toj gu mag toj gu ndaw wala tojle gu ndaw mooy lépp luy waral jàpp lu mel ni dem joor lu mel ni tuur ndox lu mel ni ngalawal yile nag bu dalee mukallaf bi am na yu ko lislaam tere mukallaf bi su fekkee dafa tojle toj gu ndaw am na yu mënuta def su fekkee dafa toj le toj gu mëg am na lu ko lislaam tere bi njëkk ci yi lislaam tere ki tojle toj gu ndaw maanaa ki njàpp war mooy laal alquran tegtal laa yamassuhu illa almutaharuun suratul waaqia aya 79 alquran ji du ko laal ludul dul way laab ya way laab ya ci mbindeef am na ñu ne laab ya ci malaayika yi waaye ñu ne loolu it dafay jottali ko mbindeef yi bi dilalati bi dalalati isharati nim kii mu rotee ci téere amr ibn hazm ba yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne alquran ji du ko laal illa tahir hadis jàngi nasa iyu ak kudul nasa iyu ku mel ni imam malik sol na ko ca muwatta <clears throat> ibnu abdulbarri ca tamhid wéral ko wax na sax moom ibnu abdulbarri ne innahu ashbahu innahu ashbahu almutawatir wala ashbaha almutawatir innahu ashbahu almutawatir li talaqi nnaasi lahu bilqabul ibnu taymiyata rahmatullahi alayhi ne huwa madhabu l a'immati l arbaa tere laal alquran ku amul njàpp tere laal kaamil ku amul njàpp mu ne mooy ngërëm ilimaan yi ñeent laal kaamil bu tedd bi ku amulum njàpp du ko def ibnu hubayra ca ifsaax nee na ñeenti ilimaan yi daje nañ ci ne laa yajuuzu lil muxdisi massul musxafi aha waaye nag mën naa yenu kees goo xam ne am na kaamil fekk jubluwu ca loole loolu beneen detaay la boo xam ne bëgguñ caa dugg ak yéen ndax dafay guddal jotaay bi bu fekkee dafa yore téléphone bu yore alxuraan mën na caa liir waaw waaw mën na koo jàngit te fekk teewut kaamil ba naka noonu julli moo xam farata la wala naafila la ndax sama borom nee na yaa ayyuha alladina amanu ida qumtumu ida qumtumu ila lsolati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxuu bi ru'uusikum wa arjulakum ila alkaabayni yaa ayuha alladina aamanuu ay yéen ñi gëm yàlla ida qumtumu ila lsolati faghsilu wujuhakum su ngeen nammee jóg jëm ci julli na ngeen raxas kanam yi seen kanam yi wa aydiyakumu ila almarafiqi ak loxo yi ba ci conc yi wamsaxu bi ruusikum masa bopp yi wa ar seeni bopp wa arjulakumu ila alkaabayni tànk yi seeni tànk ba ci tikk tikk njara yi wala doojoor yi waaw ba ci doojoor yi wa in kuntum junuban fattaharu yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne laa yaqbalu llahu salatan bi gayri tahur laaye jëma njëkk a tudd mi ngi ci hadis ji yonentu sallallahu alayhi wasallam ne yàlla du nangu julli ko amul laab beneen hadis mu ne la yaqbalu llahu solatan man ahdatha hatta solata man ahdatha hatta yatawadda yàlla du nangu julli ku tojle feeg jàpput hadis ju njëkk ji mi ngi ci muslim ci nasaa'iyu ak ibnu maajata hadis ju ji mi ngi ci buxaariyu kon ku amul njàpp mënta julli bu jullee it wérut moo xam mu xam li muy def wala mu réeree ko mu tay ko wala mu fàtte ko su ko tayee nag julli ci lu dul njàpp am na bàkkaar bu réeréy warees na ko yar sax ku mel ni maalikiyatu yi ñoom dem nañ ba ne sax yéeféer la boo jàngee Abdurahman al Axdari dina la wax loolu su fekkee dafa réeree walla mu fàtte nag du bàkkaar de waaye julli ga moom du wér na ko borom Ibnu Ashir waxee bi zikri wal qudrati fi gayri l axir waaw boo fàttee julli juum ci xibla bi boo sëlmalee soo a xam ne danga juum ci xibla bi julli nga wér na su fekkee sobee ngi woon ci sa yére nga julli ba pare soog koo fàttaliku julli nga wér na su fekkee sa euh, yaram ci yi nga war a muur booy julli am na lu ca feeñ te yëgoo ko nga julli ba pare soog koo gis julli nga wér na waaye julli ba pare fàttaliku ne man ndekete amuma woon jàpp amoo bàkkaar de waaye da ngay bamtu julli ga bi dhikri wal qudrati fi gayri al axir nasiha wa ajizun tafriuna siha wa ajizin kathir ndeysaan ñetteel ba ci yi nga xam ne ku amul du ko mën a def mooy at tawaafu bil ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na at tawaafu bil beyti salaatun illa anna fiihi lkalaam wër bi julli la lu dul ne julli la goo xam ne yàlla daganal na ca wax yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu nammee wët dafa jàpp alayhi salaatu wa salaam xadis jooju ma nga ca Buxaari ma nga ca Muslim <clears throat> yonent yi tere na ku amut maanaa ku am mbërëk mu wër kaaba gi ba ba muy laabee xadis jooje it mu ngi ci Buxaari mm-hmm. yàlla gannaaw ba ne yaa ayuha alladina amanu laa taqrabu alsalata wa antum sukaara xatta taalamu ma taquluun wala junuban illa aabiri sabilin xatta tagtasilu ndegam tere nañ ku amee yile mu julli tere nañ ko sax mu dugg eh, jàkka ku ñu tere nga dugg jàkka lañuy def ca biir jàkka kii wër kaaba gi taxut ñuy wax boo defee ki nga xam ne nag moom dafa toj tojle gu mag mooy ku sangu farata war tere nañ ko jàng alquran ndax xadisu ali ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam laa yaxjubuhu an alqurani sheyun laysa aljanaaba xadis jàng ci tirmidi mu waxaat moom tirmisi ci baatam ne yuqri'una alqur'ana ma lam yakun junuban mu ne Aliou nee na yonentu fa ñu daan jàngal alqur'an fiig mu amee janaba kon loolu mooy wane ne ku ame janaba jàng alqur'an xaraam na ci moom bu dee ki mbërëk wala ki gis deretu gësin nag li wér mooy li lenn ci boroom xam-xam yi wax ne mën naa jàng alqur'an rawatina su fekkee dafa ragal a fàtte du ko laal nag waaye mën na ko jàng lii mooy madhabu malik riwaaya la tamit ci riwaaya ahmad yi euh, maanaa ci ñu jëlee ci ahmad lu tax parce que diggante borom ba ak borom mbërëg taqale ba dafa biir ndax borom jana ba su ko neexee léegi ba ji jeex bu demee sangu ji rek mu jeex borom mbërëg nag du ne moom lay neex mu jeex dafay jël ay fan looloo tax boroom mbërëg mën na jàng alquran bu ñu xoolee ci suñu boroom xam-xami tey yi am na benn euh, kuréel gu mag a mag gu ñuy tuddee majmau fuqaha shariati bi Amerika conseil yu fiq bi nga xam ne moo nekk fii ci Amerika di def liggéey yu ama am solo ci biir àdduna bi def nañ daje bu rëy rëy ca Montréal muy Montréal ca Canada ñu ngi ko defoon diggante 28 ba 31 octobre waaye di ci waxtaanee yu mel nii yi nga xam ne mooy xew ci jullit yi ci bitim réew maanaam ñi nekkul ci dëkku lislaam yi waxtaanee ci yu bari waaye bañ paree jëluñu xaraar dañoo yónnee yëf boroom borom xam-xam yi waroon a jógee yi waroon a ñëw fekkee si ko te amuñu woon visa ñu di ko càmbar bokk nañ ca yéen ca doon càmbar mooy jàngum alquran ci jigéen joo xam ne dafa yore mbërëk jàngum alquran ci jigéen joo xam ne dafa yore mbërëk ñu ne mën na koo def bu fekkee ne nag dafa nekk jigéen joo xam ne ab étudiant étudiante la walla élève la mën naa laal sax kaamil ba ñu jëlee loolu ci lan ci xalaatu imam Malik bi nga xam ne daganal na jigéen juy jàng ak kuy jàngale mu laal kaamil ba riwaaya la ci Ahmad ku mel ni Ibnu Taymiya te lëngal ko ñoom nag ñu proposé ne ñu ngi conseillé kooku mu sol gant walla yu mel noonu su fekkee ne dafay jànge ci kaamil ñu ne it tamit bu mënee am kaamil boo xam ne am na tafsir ngir mu génn ca wuute ba ñu boole ci ye ñu waxtaanee it mooy jigéen joo xam ne dafa amee mbërëg ñu tere ko mu dugg jàkk ñu ne waaye su fekkee ne la ko fa yóbbu mooy déglu conference walla jàng xam-xam te dana fexe ba sobey mbërëg ma du taq ca jàkka ja ngir ne jamono ji ñu toll loolu lu mën a ne ñu ne da loolu lu mën a ne ndax it am nañ ca tegtal ci riwaaya buñ jëlee ci imaam ahmad loolu la imaamul muzani eh, àndandoor imaam shafii ba wax loolu la daawud wax loolu la ibnu hazm wax yooyu nag yu ama am solo la eh, yu jar di eh, seetaat ñoom it ñu def ca liggéey bu bu ama am solo yàlla na ñu leen yàlla fayal te lépp ñu teg ko ci njubal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga ki nga xam ne dafa ame euh, euh, mbërëg ñu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam tere na ku amee mbërëg ak ku amee janaba ñu sax ci jàkka ja ndax yàlla nee wala junuban illa abiri sabilin hadis jëne laa uhillu al masjida li junubin wala xaidin waaye boroom xam-xam yi jëlee nañ ci mbooloo ci saxaaba yi ne bu fekkee ne kookule jàpp na mën naa sax ca jàkk ja xam nga ki amee mbërëg mu mën a gut a sangu ñu ne bu fekkee jàpp na nag jàpp la dafay woyafal toj ga naka noonu ki amee janabat euh, mënagul a sangu bu jàppee it mën naa sax ci jàkk ja ci waxi lenn ci boroom xam-xam yi kon nag yiñ tere borom toj gu mag mooy jàngal Qur'an mooy julli euh, julli tere woon nañ ko borom toj gu ndawit waaye borom toj gu mag dañ ko koy tere plus ya ñu tere woon maanaam lépp lu ñu wax ne tere nañ ko borom toj gu ndaw tere nañ ko borom toj gu mag li ñuy yokk ci liñ tere borom toj gu mag mooy euh, jàng alquran ak sax ci jàkka ak sette maanaam ànd ak sette yi nga xam ne ñoom lañu ñu mooy exception yi nga xam ne ñoom lañu leen indil mooy bu fekkee borom bërëg la mën a jàngal Qur'an bu fekkee tamit ne borom dafa jàpp mën na sax ci euh, jàkka ja euh, borom bërëg rawatina koo xam ne étudiant la étudiante la kooku moom non seulement mën na ko jàng waaye mën na yore téere ba Ah, waxtu waa ngi gudd te ah, souhaité wuñu ko nii wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama assalaamu aleykum wa rahmatullah